la doon tudd Benno Bokk Gis-Gis ak Pape Diop seen seen diggante bu lan la lan la lool. Euh, suma xarit la. waaw et je l'assume en toute sincérité suma xarit la. Mhm. suma xarit la. Pape Diop musuma toog ak moom wax ma lu ñaaw jëme si Ablaye su ko waxoon ma bàyyi ko barki alxuraanu karim. Mhm. su ko waxoon man masali ma bàyyi ko musuma toog man xam nga bu situation amee ku nekk dana wax. man biñ may dégg bokk gis-gis c'était pour une cause bien déterminée man dama toog ñu woo ma téléphone ne ma Massaly doomu Ablaye Wade nga gëm nga ko te yaa ngi koy jàppale sa loyauté ak sa sincérité politique àdduna bi yëpp xam nañ ko tey soo bëggee jàppale Ablaye Wade da nga war a ñëw ñu defaraat parti bi nu ñu defaree parti bi mooy bokk gis-gis dañ ko créer wadd moo ñu jox ay proposition pour la recomposition de la famille libérale dafa mel tey nga nekk sa kër nekk sa papa ak sa yaay euh, famille bi doon ñaar mu am ñaari wujj si biir kër. kon dañ la doon nax de. non may ma rek sa papa am ñaari soxna. Mhm. famille bi xam nga parfois nga gis famille yoo xam ne ñaari wujj yi duñ juboo taawu kër gi taxaw ne léegi pour ñu juboo dañuy ànd comme yow ñoo bokk benn baay bu ñu àndee xëy na sa yeneen rakk yi wàll sa yeneen mag yi nañu ànd ak yow. loolu boo bëggee famille bi dëgër da si siy ànd loolu lañ ma wax mëgam ko taxaw waaye li ma koy taxaw yëpp. j'étais un peu méfiant. par hmm. rapport a beaucoup de choses est woon genre ngarale rek pour xool fan ngay non jamais ma ngarale man sama position sama courage Sénégal yëpp xam na man lu ma gëm damay taxaw wax ko àdduna bi yëpp gëm ko xamoo nga kuy taxaw télévision laa ko too man ragaluma kenn parce que ganaaru kenn nenu ma <laughs> nit nag noo toll danaa la jox cër respecté la waaye bu fa cadre bi jeexee nag bu dee xeex la kenn dàquma ko wax ju ñaawit kenn dàquma ko lu bon foog naa ñëpp ko mën mais su ros jotee nañ ko taxawal dox ñu ne ma pour la recomposition de la famille libérale pour ñu ñëpp ñu bokk ndey bokk bàyyi élection lañ jëm war nañ taxawaatal papa yi dëgëral ko pour 2017 bu ñu jëm ñu mën a jëlaat réew mi mais loolu soo bëggee bi danga si dem ba gis la contraire jox ma exemple dama Abdou demoon na ñëwaat na Ablaye Balde demoon na indiwaat nañ ko Ngiraasi indiwaat nañ ko Thierno Lo ñëw na de suite ainsi de suite mais loolu soo bëggee la sooy ñaan yàlla la recomposition de la famille libérale parti bi dëgër da nga si da bi ma toogee gis ñenn ñi di woo ay makeeg di def ay détails ak mbir ma ne non mais attendez attendez woo ay maki c'est-à-dire non <laughs> li xew ñëpp xam nañ ko